sëriñ bi ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar. waaw sant yàlla rek xam ne ñun ay doomu Sénégal lañ ak lu mu mënta xew ay citoyen lañ ak lu ñu nekk doomu sëriñ réew mi du réew bu kenn moomu ko parce que ñu doon xeexal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkewuñ jamono lislaam ba muy neexee kon ñu xeexal Sénégal bañ am indépendance fekk ñu neexaayu Sénégal kon suñ demee ba Sénégal commencé neex am koo xam ne dafa ñëw imposer ñu boppam bëgg ñoo yàqal li fi nekkoon ci jikko ci teraanga melo yu rafet kon li ñu war mooy nañ bàyyi suñu bopp ñun tamit rey suñu bopp pour Sénégal suñu doom yii di ñëw ñu mën a fekke ba neex bu neex boobu loolu nag moo ñu fi indi parce que jaay doole ji nga xam ne injustice bi man moo ma fi tax a ñëw ak bañ a bëreek ñi nga xam ni ñooy say naataango loolu warta am Sénégal kon ñu ngi wax Macky Sall na ko amul sëriñ amul taalibe amul citoyen am na ñoo xam ni bare nañ seen dund gi joxe ko pour Sénégal ëllëg mu nekk di réew moo xam ne réew exemple la man de pare naa ko ndax li ma dese ci dund yàggul parce que dund naa lu mat ñeent fukki at lu tegal li ci des yëpp bénéfice la kon sama doom buy ñëw ak sénégalais yi ñëw ñooñu moo tax may xeex te dañuy wax ne na ñëpp jàpp képp nag sëriñ si maa ngi leen di wax nañ fexe ne su réew mi tàkkee nañ fexe valeur yu am pour wax buñ waxate nañ noppi parce que li war ñu wax waxuñ ñu ngi seetaan suñ demee ba tàkk lii tàkk nag dana tàkk ci seen kaw tàkk ci ñun tàkk ci ñun ñëpp kon nañ ci bàyyi xel bu baax Sénégal ca kanam ca kanam a kanam. xanaa ñëw rek pour casse yu droit. ak euh, dëkk bi di mu métteeg coono beeg yokku yokku yi ñëpp ngi jooy daal moo tax Sonko dafa war a bokk parce que sénégalais la bon euh, ñu yaatal affaire yi daal ba nga xam ni ñëpp dañu si xëj daal doo tax ñu ñëw pour def wax daal. ba tey ñu ngi gis ñuy dem ba ci policiers yi te rassemblement pacifique bi ñu woote. waaw ñun woote wuñu ay quoi noonu ñëw pour woote jàmm daal li ma di ñaan mooy doxee jàmm parce que jàmm ci lépp xaj parce que ñu ñëpp benn nañu policier yi suñu frère nañu dañu doxal jàmm daal doxal jàmm daal lool daal laay ñaan waaw